<laughs> waaw dégg ngeen ko de sa waaye ñu commencé jaxasoo de dégg nga ma dernier aperçu ah mooy yu ko dal daddu dara day soob gars yi muy wax ku ma jàkkaar lool man du ma lii ay ma yuuxu nduur mais yow ma yuuxu nduur gën a loo demin de ma yuuxu nduur bu woote woon teewaawoon tey ñëw ñu dem yow doo dara li tax ñu ñëw ba sa quartier ah, di xool sa famille yow yaa ngi créer sa famille sax waaw doo tus moo la koy wax waaw ñooñu mënul leen dara ñoom ñoo la mën a yow waaw yow daañ la xatal Sénégal da nga dem ba yow ñu tëj la kaso moo lay gënal nga libre yow waaw kooku moo lay wax sa jukko ju bon sa saaga yu bon yi Sénégal yooyu xamuñu ko yow loolu yow duñ ci mës a ànd ak yow nga dellu moo gën ci yow ngay jéem a menacer nit ñi yow doo dara yaag sa Hélène Françoise Gaye moomu du ngeen tous laa la wax gars wàcc leen ko sa ay gaay ñi ngi lay weddi ñi ngi dem ci ñi nga xam ne ah ñoo ñoom lañ doon saaga ci su turu bopp ah ñi ngi dem di tuub yow tuubal moo gën ci yow yoonu murit faalewu dañ lay troxal yoonu tijaan dina la troxal yoonu laayeen dina la troxal yoonu ñaseen dina la troxal yoonu chrétien sax dañ la troxal ci Sénégal ndax yaa leen say jéem a dugal waaw amul kenn ku ànd ak yow kooku mooy sa popularité zéro yow nga c'est virtuel xam virtuel ah mooy loo ci air la du réalité réalité li ngay dund actuellement Sénégal loolu mooy réalité te du virtuel virtuel bi nga koy dund di am ay cent mille vues di ngand ngandlu yaa ngi am la nga am ok sa Hélène la ci dara ah mooy loolu li li di way ah? Ah? <laughs> ku wodo lamiñ bo mod bo bo noppé trox man duma noppi sama lamiñ la wodo bi bo nga wodo sa lamiñ mo gën ci yow de boko defé da nga trox yow sénégal yépp diko gis parce que amo idée amo dara sa bob bi c'est vide waaw gaay bo yoy ngay menacer ño la gëna bandi fouf ño la gëna graw ño la gëna nek ay guerrier loy jaay ño la ko ëpp waaw ay Amérique pays de droit laa nekkoon bu dee droit ba nga respecté respectel droit bi nekk Sénégal waaw Sénégal mënoo ne saaga xamu xawu fi du seen aada du seen cosaan dañ ko fi yi nga ñëw di ko def saagaal kon nel saaga du ne kenn mënul tee saaga bark sëñ Tuubaa da nga saaga ku la yóbbu tribunal daañ la nokk ci kaso bi Assane waaw te kenn du la génnee yow waaw Macky Sall newanaal du moo lay tëj bis bu ñu lay tëj yaay tëjlu sa bopp te yow yaa ngi ci yoon ba kon nel loolu bu ko bàyyi Assane jàppal yak sa gaay yi di ànd di saaga ñi ngi lay weddi ndànk par ndànk sa dafet bi nga am keroog ci sëñ abdou karim sa dafet bi nga xam ne am nga ko ci cheikh amar mi nga naan sa jarbaat la ay naan dañuy bloqué léegi nag gis nga ah tiwaawan am nga fa tey ji ah dimanche suba la tey la samedi la ñuy wax ak yéen de samedi suba la dimanche Assane du ngeen ko gis Tiwaawan bu fa demee daañ ko dóori yat laalo ba yeew lañ koy génnee nañ ko yanoo génne ko Amérique daañ ko génnee Tiwaawan laalo bu delloo tubaa am na nu mu fay delloo daañ ko fa génnee Touba newoon naa lañ la bàyyi xam nañu def parce que xam nañu fa ngay mujj xam nañ ne yii ngay def ah mooy sa troxante jarul ñu ci yàq seen doole Pape Diouf tranquillal sa waa ji ah, Sénégal dana ko yar booy bul nekkati di topp ci yii muy def bul dëggu ay provocation ba tax ngay ah, di di di di wàcc dara ja yar bi nga yoroon hmm? mu yar gi ñu la xamee mbaax gi ñu la xamee continuer ci loolu bàyyi ko ak ci mbonom gi ak saagaam yi Pape juuf dama la koy ñaan bul toppati waaju mel nii sa rakk sax bu jógee ne da koy attaque yow bloqué ko nga taf ko defal na Youssou Ndour def defal na Macky Sall def ak yeneen ñoo xam ne si ñoo am nañ daraja saaga na leen yéen ñëpp seen daraja du changé moom la daraja musu ko am personnalité bi muy wax yoru ko musu ko yor xamul sax lan la signifié waaw donc bu mu la dugalee ci yii bàyyi ko mu saaga boo bëggee bu la naqaree wala sarak porte leen ko plainte ngeen yóbbu ko tribunal parce que doomu aadama la ko yépp man mi bu ñëw ñëwoon di la saaga da mooy may porté porte leen ko plainte kii dafa réew nag mi ngi bëgg exagéré Amérique la doon saaga loolu loi la fa kenn mënu ci dara léegi mi ngi Sénégal nag bis bu na mi ngi lay wax Pape maa ngi Sénégal Bouba Ndour maa ngi Sénégal Bouba jóg leen ci waa ji il est au Sénégal bu la wooyee saaga sa ndey woo ko tribunal yoon dafa am yoon ñépp la fa newal bu dee dam ngeen nag yoon jox ko dëgg bu boobaa yoon la sénégalais yi am ak moom problème kii il est en train d'exagérer Bouba Ndour Pape Diouf Youssou ak citoyen boo xam ne doo makki sàll ba nga xam ne bu ko laalee ñu teg ko feneen ah pour mu jéem ko yàqal moo tax pro yéen ay citoyen comme man ngeen bu leen saaga dem leen ngeen yóbbu ko fa mbaxane nekke benn Assane Diouf moomul Sénégal a ah, way Assane Diouf mënut a jaxase tarixa yi Assane Diouf mënut a jaxase sénégalais yi Assane Diouf du dara lu muy soppi Sénégal kenn soxla ko kenn bëgg ko fa dañ koo yeew ñëw tegal leen ko du dara du moo fa ñëwal boppam Sénégal ba mu fa loon jooyuñu ko soxlawuñ ko amul dara deful dara yéen da ngeen a créer da ngeen taxawal moom amul lenn lu mu fa taxawal lu nekk leen saaga mais na ñëw ne kër gi maa ko fi tabax wala douche bi muy wax jarbaatam boobu moo ko fa tabax jarbaat ba sax au moins yor na atelier boo xam ne dana réparer oto moom daf fa yorul dara ay kàcc yi kese la fa yor waaw kon nag gars yi jóg leen ci moom Macky Sall mënut a yëngatu yéen ñi nga xam ne ay citoyen simple ngeen dénoncé leen ko porté leen ko plainte jeex na jeex na kii kaso la war a dugg parce que les en train de déranger même ñi nga xam ne moom ñoom moom lañ àndaloon quoi ñoo ko doon jàppal donc Macky il a bien fait ba laalu ko fenn laalu ko fenn waaw parce que xam na ne lii dana foon agsi waaw tarixa yi mu ci bëgg a dugal nag dana xam ne yii dimension bu ko ëpp doole la waru fa jéem a dugg soxla ñu ay ñeenti koŋom yooyu mu àndal naan ay baay faal lañ ñoo xam duñ dara nekk fële yor seen ak leget bu ñu amee lu jar boon bu ñu yalwaanee ba ñu jox leen lu jar boon ñu jënd ko tox ko ñooñu duñ ay baay faal waaw nañ dem ca Cheikh Fall Mbawor mais jàng lan mooy baay faal topp la muy def waaw mbaa ñu dem ca xalif général de baay faal ba ñu topp la muy def loolu la ñuy wax ay baay faal mais kii amul dara yi yoo xam ne tekkiwul dara banaan bu ko soxla nag ma woo ma woo ay Baay Faal yorul dara monde virtuel la yor loo xam ne ci ngelaw la nekk du zéro Sénégal googu démontré nañ kon nag na ngeen jóg ci moom na ngeen jóg ci moom bàyyi leen saaga yi mu leen saaga ngeen di ko nangu porté leen ko plainte justice dafa am Sénégal ok loolu bu ngeen ko tëjleew bañ ko yoon tegu ci loxoom kooku Macky Sall yoonam néew ca gouvernement bi yoonam nekku ca waaw sinon day mel ni kii dafa yor lu kenn yorul kii du xut bu jamono dara sagaru nit bu tekkiwul dara la kon nag na ngeen jóg ci moom gaa yi bu leen nangu mu leen teg yenn yi tarixa yi bu fu jëkk sam réew naan daf sa dëkk naan dafay organiser daf leen lii tiwaawoon def na takk lim yor xel kom soxlawuñu Assane juuf kooku mu naan nijaayam laa ak Cheikh Amar Cheikh Amar la mu yor soxlawul ay Assane di fa indi ay ndoxam fukki mbuusi ndoxam yooyu soxlawu ko voilà ak ñeenti miis mburóom soxlawu ko ay taalibe ña ngi fay def loo xam ne ay million la taxuñu di ko wax seen loxo càmm ndeyjoor bi li muy def bu càmmoon ba yëgu ko kii nag juróomi mbuus yu mu joxe dana ñëw filmer ko wone ko defe ne moo yor Sénégal da koy wone du dara zéro ji nga waxoon moo ko tane zéro ko tane Assane doo tous zéro nga zéro sax la gën waaw kon nag jóg leen ci moom ah jóg leen ci waa ji parce que sinon dana jaxé sénégal dana am problème bu sérieux waaw lim bëggoon nekk martyr teggil nañ ko ko sénégal weddi nañ ko léegi dootu gouvernement ba sénégal yi ñoo ko weddi ña ànd nag moom sax ñi ngi koy xalab fi mu nekk nii waaw ñi ngi koy xalab waaw ku ci ab tidiaan wala nga ay murit bu dee yow gëm nga sëb sëriñ lam lay wax déglul waa ji ak ñaaw lam yi al moo tax nanguwuñ mu dem tiwaawoon te tuubaa soxlawuñ ko fa lu tax si abdou karim di ko ignoré han ba muy tàllaaye loxo joxu ko ak loxo bu tedd boobu sax tegu ko ci loxo jaayil bu mel ne waaj yi han war na leen am lu mu leen jàngal ci àdduna quoi te waa tiwaawun soxluwuñ loolu waa ñeseen soxluwuñ ko waa laayeen soxluwuñ ko kum jóglu ñëw ci yéen na nga ko toroxal ni ñu ko toroxalee kii dañ koy war a ignore saaga yooyu duñ lu sénégal moom du lu islam bëgg yàlla bugg ko yonent bugg ko sëriñ tuwaa bugg ko alaaj mali bugg ko bàyyi laay bugg ko bàyyi ñeseen bëgg ko ah, kon nag jóg leen ci waa ji ignoré leen ko yéen ñépp bu dee ay taalibe ngeen nag bu leen nekk fi di saaga koo xam ne si ah daf ko contre waaw daf ko contre ki ko contre daf ko teg parce que Assane man xaw ma ko intéressé wu ma bëgguma ko sax xam sama àdduna waaw mais li muy def bu dee ab taalibe la ñaawlu naa ko képp kuy taalibe ak tarix bi bu mën a bokk ah war nga ñaawlu lii sinon war nga ruus comme moom gasal pax ba mu xóot nga dugg ca yow moomu ak say saaga yaag moom waaw ciao ba beneen